école Al azar bu Ndaam nekk école bu ñu ràññee ci jàngale waaye tamit ci yar député Cheikh Abdou Bara Dolly jukk ngir ci xeex bi jëm ci Covid 19 bi lépp lu waa kër docteur digle la joxe ci école boobu ngir aar élèves yi ci jàngoro ji bi waatuk école bi ñu jàpp ko ci ñaari fan ci weerum juin. bi ñu dëtmal sëriñ ab du Bara Dolly di ñaan ñépp ñu jaaroon ci école bii ñu def bi le ngir xeex bi le mbas ah, di Covid 19. samay tànk nag tànk taalibe la tànk doom la ndax damay produire boo xamante ni dama jóge ci école bi mooy alasaar bu sëriñ bi ma xam taxawaayu sëriñ Murtala ci lislaam di ko ñaan yàlla yokk ay leeram. liggéey bi sëriñ Mamor yor ko mu teg ko ci loxol suñu waajur sëriñ Saliou ak ñi mu àndal kon bu fekkente ni àddina toll na fii ñun dañuy mën lu dul ñëwaat fi nga xam fi lañ jàngi woon wanewaat suñu jàppale ak suñu taxawaay ci école bi ndax produit école bi lañu mais li ko waral lépp nag moo di taalibe ndax ku ne xam na ni éducation arabe lu am solo la. te fi ko sëriñ bi yóbbu muy sëriñ Mamour xam nañu ko muy ci biir réew ak bitim réew kon bu fekkente nekk nañ ay doom ak ay taalibe nekk député askan wi fal ñu bu ubbee école yi te mbas mi nekk fi war nañu ñëw pour maanaam jàppale leen ba nga xam ne daan mën a xeex mbas moom noonu muy jëm si ay sel ak ay ak ay mataar ak masque yi nga xam moom la ñu war a takk ak benn somme toll si téeméeri junni boo xamante ni pour que jàppale ko école bi ci mbirum transport loolu lépp nag li ko wund mooy comme li ma wax rek moo ko wund di xam ni ñi fi jaaru ñëpp war nañu def comme ñun ndax école bi wax dëgg yàlla euh, malgré que sëriñ bi laaju dara waaye nag bu fekkente ni da nekk doomu école bi nekk doomu dëkk bi nga jaar si école bi tey ba yàlla may la lim la may ci xam-xam may lim la may ci yàlla suturaal la ci mbirum état bi nga am doole ci lenn li muy nga nekk député te taxaw ñëpp di la déglu nga toogal askan wi Serigne Touba ci assemblée yàlla may la tuut war ngaa dugal sa loxo ci école bi. Serigne Saliou di directeur général bu Al Azhar di yëkkati ay kàddoom ngir di rafetlu li Cheikh Abdou Mbacke def. rafet lu baax jéego yi nga xam moom ngeen dox ba ak si fii ak yëg-yëg bi ngeen xam am ngeen ko ci daara ji ba def maanaam du bu mel nii. cant gi yëpp nañu teg ko ci loxol suñu Cheikh Abdou bi nga xam mooy moo jiite mbooloo mi tey def jéego am solo yoo xam ne nii ñu ngi ciy dégg lu baree bari te jéego bi di ko firndeel ni mu ko waxee nag loolu defe naa lu am solo la mooy dafa ñëwaat delloo njukkal daara ji ndax daara ji moo ko formé ni mu formé yeneen ay junni junni morom yu mel ne moom yoo xam ñu ngi tosaat ci àddina bi yëpp xëy na bu ñëpp defoon ne moom kon daara ji dana gën a mën a jëmmal liggéeyam ci biir Sénégal laaj ay millions doomu aadama la defar yoo xam tey ñu ngi ci foo dem Sénégal fekk la foo dem ci àddina mm-hmm. lépp lu yëngu ci wàllu njàng ak jàngale boo demee da nga fekk ndax sax dañu jàpp ne jàng daara ji arab lay jàng waaye daara ji diine lay jàng xam mm-hmm. nit la ñuy formé nit ki ñuy formé nag diine ngi ci biir adduna ngi ci lépp ngi ci biir moo tax loolu kon foo dem fekk leen fa ñu fay yëngutu mm-hmm. moo tax kon moom bu ñuy def lu mel nii soññ la ci moom soññi la ci ñun ñi ne ci biir daara ji tam boobu ba léegi ñun tam ñu ko xam taxawaay bi ñu war a taxaw ba daal ñu gën a mën a def liggéeyam ni ko sëñ Mountakha soxlaa woon barab la boo xam ne nii sëñ bi dañ koy faral di fàttali lu baax ne ñun liggéeyuñ duñ école privée ndax école privée mooy école boo xam ne nii dangay ngay jàngale ñu lay fay nga ciy wut xaalis loolu ñëpp xam nañ bu dee fii ci Al Azhar nag amul bénéfice li fiy génne lépp ci biir école bi lay dugal amul benn dërëm bu fiy génne boo xam ne day dem ci kon li fiy génne buñ ci saytoo barab ba pare jox saytu jàngalekat yi ñu ci jàngale li ci des amul leen li ciy génn kon doxul ci bénéfice te liñ fiy laaj di ko di fay daanaka mën nañu wax ne du fay ndax boo ko laajoon maanaam du doon doon ak fay te boo xoolee ci biir loolu da ci fekk ay téeméeri téeméeri yoo xam ne ñu ngi fiy jàng te dañu fay ñoo xam ne ñu leen laaj benn kon ngi tax taxawaayu social boo xam ne nii mi ngi koy liggéey ci biir askan wi loolu itam ñu xam ko kon bu ko Serigne Cheikh Abdou moom fàttali ko ba def jëf ji mu def kon dañ ko sunt ci tant ci turu Serigne saaliw mu bàyyi ko Serigne Mamour mi nga xam mooy mooy jëw ñu liggéey bépp yilif liggéey yilif lépp teñ teewal ko fi ñun ñëpp tam waaye ci njiitu Serigne Saliou ñu jottali kàddu yi cant ak gërëm li ngeen fi indi bu soob yàlla incha allah gis na ko jëfandikoo ci gën jaar rafeti anam ndax xam ngeen école li ko topp bari na li ma ko waxee léegi juróomi téeméer école lañu tasaaroo ci biir Sénégal lu ma juróom ñett fukki junni ay dong di jànge bu soob yàlla incha allah fexe ba ku nekk sa jëf àgg fa ndax mën laa ñaan ba taxawaay bi nga bëgg taxaw yàlla mën la mën la gën laa doole ba nga koo taxaw ay millions doomu aadama jaar ci école bii di Al Azhar toll ci juróomi téeméeri école ak juróom-ñett fukk junni ay ci ay élèves di fi jànge ba tax directeur bii di ñaan ñépp ñëw jàpp ci école bi ngir mu gën a jëm ca kanam